ma ne Ousmane Sonko buñ ko bàyyiwulee dina laal ay kilifa diine di laal ay kilifa diine te moo am temps yi passé ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko. Mhm. gis nga bii yoon buñ ko bàyyiwulee di ngeen mus lu ngeen musul gis ci àddina maa ko dogu ci di ngeen gis lu ngeen gis ci àddina rawatina nag ñu ne dañ koy jéem a yóbbu di ko tëj nañu bàyyi doomu jàmbur bi. Mhm. gis nga Vito. yàlla dafa def Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk nga am ci wàll ma am ci wàll mhm. moom mu am ci wàll gis nga tooñ mhm. nu ma ko mën a waxee tooñ laa ko mën a waxee mhm. parce que benn preuve amul amul dara loo xam ne mën nga ko teg si taabal bi ni lii Ousmane Sonko moo ko def nga mën a jàpp sa gémmiñ ne lii moo ko def ma jéggalu sax avant loolu sax gis nga Ousmane Sonko dama naan wàlliw la man maa ko wax tey bi na ko ñëpp def seen bopp ni usmaan Sonko du moom kenn kese dafa am lu suñu boroom def si moom. Mhm. te dafa am lu yàlla namm ci usmaan Sonko. Mhm. li yàlla namm ci moom nag doomu aadama mënu ci dara. Mhm. gis nga usmaan Sonko. yàlla rek laa koy seedeel. suñ ko bàyyiwulee suñ ko bàyyiwulee. Sénégal mooy Sénégal boo xam ne ba ñu juddoo ba tey. kenn musul gis li am ci Ousmane Sonko ci mbir Ousmane Sonko dama bëgg man li may ñaan kilifa diine yi mhm. kilifa aada yi mhm. sénégalais yi na ñëpp tàllal loxo Ousmane Sonko Ousmane Sonko xam nga lan la des mhm. ñun sénégalais yi ak suñu borom suñu borom ak ñun sénégalais yi mi ngi mel ni nga duggoon ci avion nga duggoon ci avion nga yaakaar ñi ne ci biir avion bi yëpp gannaaw gannaaw pilote bi gannaaw yàlla pilote bi yëpp ñu nekk si ginnaaw moom la ñu yaakaar. Mhm. Ousmane Sonko noonu la toll moment bi ñu nekk. bés buñ ko tëjee. Mhm. bés buñ ko tëjee di nga gis Sénégal loo mës gis. loo mës gis maanaam gis ci Sénégal xam nga junj doy na borom xel jutoo. Mhm. xam nga wax ju yegg daf moo ko moom. su ma la nee di nga gis lu ngeen mës ta gis. mooy comme li fi amoon lu koy gën a yées moo fi amaat. te gis nga nguur gu jeex. yàlla da koy jeexal. gis nga yàlla doomu aadama du xëccoog suñu borom. Mhm. yàlla moo jeexal nguur gi. xam nga dañuy indi Khalifa Sall. Mhm. mu jàll. Mhm. ñu indi Karim Wade Karim mu jàll. ñu teg ci Khalifa Sall mu jàll. yàlla ne bii déet du jàll. nañu bàyyi usmaan Sonko te yàlla rek tax bu ñu bàyyi Ousmane Sonko Sénégal ñëppay nekk si jàmm. ndax ñun kat jàmm lañ soxla vitoo dañoo yor ay njaboot mhm. yor ay doom seen moroom yi ñu yaakaar ci xëy di dimbali seeni i waajur mhm. vitoo xoolal li ci dee ci doomu aadama mhm. pourtant mënoon na ñàkk de lu ko waral ay nafsu doomu aadama bakkani doomu aadama dee gi yëpp loolu moo ko waral